aspect bi ñuy waxtane moy hmm, lo xamne day tax sa aduna moom day ñong day wërseuk ak taar parce que gis nga zikr hmm. yalla dafa wax ben wax mu ne hmm. alaa bi sikrillah tatma'inul inul ndax du ci tuddu yalla ci la dalu xol nek ci la dalu xol nekk est-ce que du ci tuddu yalla kep la seen dalu xol nek manam niñ day daw di wut xaalis ñi di daw di wut daraja ñi daw di di woy xéssal ngir rafet mu defe ne taar bi buñ ko amé ci la affaire bi nek fekk déedéet Mm-hmm. tudd leen yàlla rek tat ma inul xuloo mm-hmm. zikar rek ngay mën a def dem ba gis nga da nga nekk nekk président de la république yor kurus gu bën na ko gën a neex yor kurus gu bën na wallaahi mm-hmm. asalaamu fàtte cliquer ci abonné ak si cloche bu ndaw bi pour vidéo wuñ munti dool nga mën koo njëkk am bul fàtte cliquer ci abonné ak si cloche bu ndaw bi pour vidéo wuñ munti dool nga mën koo njëkk a mag mag la dal la xelam moo koy may yaram waaye nag jàpp naa ne itam mënoon naa man dinaa ko invité daal dinaa ko téléphoné mu invité ko bu soobee yàlla meetar ñëw màggal si eh. te xam naa ne day daa wax loolu rek waaye bu ñu wootee màggal gi sëñ Muntaxa sëñ Bass woote na dina eh. ñëw eh. ndax maître Mourid Sadiq la man yaak ci ni ma ko gisee li ci des nag mooy ñu moytandiku ci bu événement tollee fii hmm. muy màggal gi dana am du am nangam nangam nit ku mën a doon ñi ko ñi yalla jox responsabilité bi moy sëñ muntaha ak euh, Macky Sall waxon naa ko fi hmm. dafa am benn peul benn nar bu ñew Touba euh, ci benn kër man sax kima ko nettali dana ma ko am sa mu sëñ son bu la bi ñewé tok toog benn donga fekk ko fa nan ko sëñ bi xewali tew na nga jot mana barkelo manam taw feexi bi ak yoyu non manam diko wax lo xamne hmm. ay olof la waye hmm. niko waji waxe xamuko waji nar bi diko xol ba yag mu booy man déggul murit de. <laughs> mel ni làkk. waaw man déggul murit ndax am murit ah, dafa am million boo demee si ni façon yi wax. jàngaay yi ñuy wax mënoo koo xam. maanaam ay tawféex ak ay tuut tànk ak ay nangam yoo xam ne doo xam lu ñuy wax. <laughs> naar ne ko man déggul murit de <laughs> waaye euh, gis nga murit. ak màggalu Touba. ku mm. xamul ku xamul dayoo bi mu toll ak lan lay symboliser ci ñoom maanaam moytu ci di ci wax waaw waaw parce mën naa jur ñu jéppi la te mm-hmm. fekk ci seen biir ngay bokk waaw ah, ah. waaw loolu moom lu wér la ah. jërëjëf Cheikh bi defe naa ni wax ji am na solo kon ñu daal di jublu nag ci li nga xamante ni bii nag mooy mbir bële passé am na loo xam ne expliqué nga ko ci turu sunu borom yi mm-hmm. mu am ay tur yoo xamante ni bii joxe nga ko fi muy tur yoo xamante ni bii euh, tur yu gars yi defe naa bétt yi jëlaat na fooy ba moom xam naa ne temps yi la jël <laughs> wirti la jël fi mu toll nii damay jékki-jékki rek mu romb ñu pew <laughs> fekk ma nga ca kurus ga Cheikh Bara tey fan nga dara génn ci li nga xamante ne bi mooy tur yi moom nga nekkoon keroog parce que keroog yaa ngi woon ci loo xamante ne bi sénégalais yi defe naa ni ñi ci belli béti bari na ñenn ñi enregistré la ñenn ñaa ngay daw ci youtube bi di ko kar di koj li nga xamante ne bi moom la ñuy wax kii mu nekk loo xamante ne bi lu am solo tey fan nga jëm wa di wax rek émission bi ñu defoon. won wan na mané nit ñi mom manam ñu bëgg lu baax lañ bëgg yalla lañ. Mhm. wan nit ñoo xam ne am na ñoo xamné ne lañ joggé mhm. ñew ba yex ci top man dal ah, li la laa laaj li bu ko defee ma joxat leen yeneen yu gëna baax sax. Mhm. ñu dal di bind yob amna soxna so xamné xamna ni bo muy tul suba dina yex mom France la ne damay ñew parce que affaire bi man damay nekk sama néeg rek di créer sama tour di bind di waaw moom man. këreetul. këreetul mooy bëcc. waaw dama damay xalaat rek dafa am loo xam ne ci tasawuf dañ koy wax maanaam dafa am fooy toll ak yàlla. da ngay yëg widd bii nekk sa xol. Mhm. am na lu manqué même am auto rafet nit ñi di coow ngay dox mais da ngay xam ne am na benn di bu nekk ci yow. Mhm. boo ne rek moo ko mën a remplacer. Mhm. léegi nag bëgg googu nag mooy indi. da ngay jékki-jékki yalla di la xiir ci ay sëriñ yooyu na jël sa alal yëpp joxe ko bu ci ñoom mhm. ñi yàlla di leen xiir ci ñuy jékki-jékki di julli kenn kenn ku nekk dafa am nu mu lay dikkee léegi nag loolu saa yoo ko amee rek mhm. li gën mooy ca sëñ Touba ca Masaalikul Jinaan dafa laa wax nga dem wuti cheikh cheikh mhm. nag mooy nga wut koo xam ne gidd la rek comme nga ñëwoon tey gore bëgg a xool place yi pour mu nga man cee lii il faut nga wut gidd bu lay wan wan wan wan loolu mooy mooy mooy mooy mooy mbir mi il faut nga am koo xam ne gidd la parce que tey lu mu mën a doon rek maanaam dafa am ñuko xam ño xamne ño la ci jox orientation bi la ci jariñ ak la ci lor nga moytu ko ci waaw su ko defé lolu nga may ma ñaari baat rek ma def li ñuy wax laytaay ndax zikkar ci bopam waaw dafa nek mbirum hmm waxtaan nañ fi ci hémorroïde waaw siti diabète asthme sangutu nangam nangam yu yëpp bay ree ko yu yëpp wax nañ ko fi hmm. yu yëpp nak mbirum yaram la hémorroïde aw yaram ko def siti aw yaram ko def hmm yooyu yëpp mbirum yaram la sangu ci yaram la ñuy sang waaye wird nag hmm. ci ruux lay dox ci maanaam ci ruux lay dox hmm. daf lay defar waaw defar sa jikko bu la sëriñ bëggee jariñ ñi doon topp wàll yu yëpp ci ku dañ leen di joxaat turi yàlla hmm. ñu di ko sikar bu xoolee sa ruux xam ne tur yi nga war a yor da la koy jox nga di ko sikar ngir mu mën laa defar parce que mooy dindi ñaawteef yi nekk ci yow di indi njariñ njariñ yi nga xam ne moo gën a tedd te noonu nag lay yaate ci sa jëmmi bopp bu fekkee da ngay zikar di nga am xeeti jikko yoo xam ne ñi dul zikar mënuñu ko am hmm. di nga am sax ci xeetu taar ñoo yoo xam ne ñi nga xam ne saxoo nañ zikar mën nañoo def nit ku ñaaw nii te boo leen di xool danga leen di xool sax jooy hmm. te fekk seen ruux fekk ñoom dañoo ñaaw waaye nga leen di xool maanaam leeru xa leer leer nuurullaahi li ñu am leeru yàlla jox ma ko jox ma wér leeru <laughs> leeru yàlla boo xam ne ma ko jox de Cheikh Bara kenn mënu laa wax nu mu demee nga xam ne ñenn ñi day dem ba nga xam ne waaw euh, mm-hmm. dafa am daal yeneen yu muy def ci yow yoo xam ne maanaam maanaam maanaam du bokk ak <laughs> yii ba noppi nag di yéegal sa rox ci suñ borom ba noppi nag léegi waaye ci aspect bi ñuy waxtaane mooy mm-hmm. loo xam ne day tax sa àdduna moom day ñoŋ waaw day wërsëg ak taar parce que gis nga zikkar mm-hmm. yàlla dafa wax benn wax mu ne mm. alaa bi sikrillaahi tatma inul xulub mm. ndax du ci tudd yàlla mm. ci la dalu xol nekk ci la dalu xol est-ce que du ci tudd yàlla képp la seen dalu xol nekk maanaam niñ day daw di wut xaalis ñii daw di wut daraja ñii daw di di wooy xeesal ngir rafet ñu defe ne taar bi ñu ko amee ci la affaire bi nekk fekk déedéet mm-hmm. tudd leen yàlla rek tatma inul xulub sikar rek ngay mën a def dem ba gis nga da nga nekk nekk président de la république yor kurus gu bën na ko gën a neex yor kurus gu bënn wallahi hmm parce que président da am fum tambalé am fum yam wa am ñu la bañ di la ko wan ak bëcëk ngay hmm. moytu di daw ñi lay saga lepp ta manam bo yoron ku tudd kurus gu wir bam hmm. dem bam mu bënn hmm. lii ma la wax manam do am non ta lo bëgg yalla def ko man te loolu man na ci jël exemple yu bari ci ci man fi ma jànge masar Diop wa góor gi ma doon jàngal dëkkub lam mo len yor añ rer ndekki ngénte yi dépassé tak sédi lepp mo koy def hmm? ta bayut samut defu dara fim tok la tok yor kurusam kurus la yor maa ko wax kurusam kep la yor di yor dekk bepp so avancé tuuti nga dem ci dekk bi ñi wax ndigal ndjay kérok tuddu naa ko hmm. sama mam la mam ma ndjay hmm dekk bepp moy fay courant moy fay ndox mo tali dekk ba moy joxe dépasse kër yëpp te nee na du lek jën yàpp rek. Hmm. <laughs> te ñëpp li ma lay wax ni waa Kajoor ñu ngi may dégg ndigal njaay amu fa kenn ku nekk ci dëkk bi koo xam ne moom yoru la. te moom du bay amuti nag du sàmm du def dara toog rek yor kurusam. kurus. allahuma rek. waaw lépp moo ko yore. ci yàlla ko yàlla yërëm ñoom ñaar ñooñu ma tudd ñëpp jóge nañ fi mais dafa dem ba boo fi wanee gannaaw sax hmm. barke bi keroog lay gën a am doole keroog lay gën a yëkkatiku keroog lay gën a dox waaw loolu mooy tudd yàlla loolu lay jariñ mm. boo demee sama beneen bàyyi bu ñuy wax alaaji njaga njaay ca mm. njare tuubaa njaay ñëpp xam nañ waaw non même ñi genre nit yi ma la wax la woon ak boo doon wër réew mi fépp foo xam ne nii mm-hmm. xaqiiqa bu leer a nga fa te mm. góor yàlla nekk fa boo demee lu mel nii nga koy fekk ñooñu nag maanaam loolu jombul ah. kenn mën na maanaam coono rek la yàlla ah. mi yàlla miñ doon woom mi ngi fi lam doon mayee jeexul waaye it wut ko nag moo bi nga wax noonu xam nga tamit da wax wax nga boo xam ne yu intéressé parce que di jooy ndax taar mm-hmm. ah. loolu tamit boo ko boo ko bëggee boobu kay Cheikh Bara boo ko bëggee joxe waaw boo boo dee wird waaw waaw boobu kay jaral na ma lu ne jaral na ma jóg heure bu ne yaa yaa yaa waddoodu ñaata yoon yaa waddoodu ku yoon bindal waaw yaa waddoodu chiffre bu vingt la vingt am lu ñu wax yaa waddoodu badooxu coof ngeen di waxal wa badooxu badooxu saa njóogu ni boo ko defee waaw taaru de cheikh baara <laughs> man dama koy def seetu de damay seetu di di wir badooxu badoodu haadi waaw badooxu wadoodu haadi bu la neexee ngeen yaa badooxu yaa wadoodu ya haadi waaw 60 bu la neexee 60 suba 60 ngoon mhm. bu la neexee saa yoo def 60 mhm. muy jigéen muy góor boo paree def di nga siiw mhm. di nga rafet di nga am xaalis <laughs> bi <laughs> bu dee nag <laughs> waaw bu dee nag koo xam ne da nga tey it nag dinaa la wax benn affaire boo ko dee def mille cent onze par jour portable yéere oto télévision maanaam matériels yi bagages yi waaw da dikkal da lay yomb loolu day yomb waaw yaa waddooxu mille cent onze yaa waddooxu yaa waddooxu mille cent onze waaw man may ma bu fekkee nag bu fekkee nag koo xam ne sama taar bi bu dee bu fekkee koo xam ne dafa bëgg a zikkar waaw koo xam ne zakir la zakir maanaam dafa am nit ñoo xam ne boo leen joxoon fanweeri astaxfurlaa sax mënuñu ko def am ñoo xam ne yàlla moo jox yitte ju kawe ci wird waaw kooku da koy def <laughs> maanaam deux mille deux cent vingt deux mooy tolloo bal ya baaxu mabsu sataani maanaam loxo yàlla yi da koo tàllal pour jox hmm. mooy deux mil deux cent vingt deux deux deux cent vingt deux boo ko dee def par jour loolu moom mooy lim bu mag bi waaw soo ko dee def moom hmm. demal tuuti nga xool hmm. waaw da nga siiw waddoodu loolu lay firi moom lay firi waaw bu la neexee nga bindulu ko 22 maanaam 2222 waaw ci sangu di ko wird di ko sangu di ko wird day tax mu gën a gaaw koo takkaale <laughs> waaw ba tey asalaamu <laughs> aleykum aleykum ye asalaamu aleykum aleykum ye asalaamu aleykum ye asalaamu aleykum